ak mm-hmm. moom. Mm-hmm. xam nga der fekk politique nga moom marche di am ak loolu dem te jamono 2012 ñaata ñoo fi dee. marche nañu nangam ba léegi lañ doon xeex 2012 moom la xeex ba tey moom la ñuy xeex suba nañ continuer mais je pense que euh, maalu Sénégal mooy kuy wax te yàlla tax wala ngay jëf te yàlla tax wala ngay jëf pour la république wala ngay jëf pour les sénégalais bu nee bu société civile. boo leen tegee rang nii bu dee xam nga leen di nga xam kenn ku ne fan la far c'est des politiciens déguisés dama dama jàpp ni dinaa prouver dinaa ko prouver. Hmm. société civile. Hmm. warul faral état warul faral opposition réew mi la war a faral ku wàcc yoon mu la wàcc nga yoon bu état wàccee yoon mu ne état bi lii du ci ànd ak yow ànd ak opposition xeex ko bu opposition wàccee yoon ñu ko opposition bi lii nga wàcce nga yoon lii doon la xam ci société civile. en tout cas bu respectable noonu la war a mel yéen a ngi dégg M2D muy kaas ñaata at ñuy wax mais kan la ñuy xaar kaasal. Hmm. ñi jàpp ñu xam soxla kaasal rek pourtant victime yi bari na yéen mi ngi koy wax mën nañu wax yow victime la hmm. bi ñu taal sama kër à quel titre bi ñu taal fii TFM gi à quel titre bi ñu taal kër El Hadj Diouf un avocat même France nga xam ni. ay jihadistes ñoo jóge ci àll ba ñoo fekk doomu France di leen rey bu ñu koy àttee day am avocat français bu koy défendre boobu gën a garaaw les jihadistes en France am nañ avocat yu leen défendre Abdoulaye Diouf défendre un Sénégalais bu bu par sa plainte ñu taal këram à bu tudd RFM taal ay journalistes seen oto fekk ko fan créé combien de dégg dégg nga société bi kaa dox dégg nga société bi wax ci yooyu. lan la ñuy ki ñu rey ki ñu nangam ñi jàpp mais ñoom ñu jàpp ni ñoo tax xam nga problème bi lan la dañuy jàpp ni man je pense que dañuy jàpp politiciens yëpp la jàpp ñoo gën a yeewu Sénégal mais je pense que Sénégal ñoo gën a yeewu politiciens yi parce Sénégal heure bu def farata bi rek dañoo def pare gën par nañ ci boo ko ci ñàkk fa du leen gis muy comme man di doon nag boo leen wàcc ci ñàkk fa du leen gis bi faj dara réew mi day wàcc faj ko bu réglé demaat toog këram di ko leen liggéey ñoo nekk ci mbedd yuuxu di nax seen bopp gis nga ay local kenn gis nga fiche électorale amul problème barki dama jaay la opposition ñoom ñoo wuti ay expert international teg leen nee nañ nañ audité fichier bi résultat yi génn lan ngeen ci bëggati donc problème fichier bu ne parle pas de fichier am na dara kon maire Dakar du doon Khalifa Sall bu Macky Sall noonu dara ci fichier bi le maire Dakar ne sera pas Khalifa Sall kon Abdoulaye Wade daanu la doon Macky Sall fuuf ëppoon ko ëppoon ko solti si bu ko doon jàppale dañ ko gagné du Diouf ëppoon doole fuuf ñi ñëpp dañ ko gagné donc war nañ ko perfectionner war nañ ko améliorer war nañ ko nangam je suis d'accord mais mënoo kenn mënul tere opposition bu marche mais xam nga lan nañ bàyyi naxante bi bu dee société civile m 2 xaw ma société civile la na wax ni société civile la bu dee parti politique la na wax ni parti politique la fii réew mi ne c'est un pays de droit mënoo nit ci réew mi di citoyen sénégalais chaque jour bu teye nga ne yaa nga Tamba créé fa ay rayante génn xale yi dëkk ba ñu toj dëkk bi tàll yëfi yaamut génn suba ngay nga ne yaa nga ñaniñ ñu nit da nit delloo nag ginnaaw suba mais ban mandat nga am pour def loolu ñaata député fi ne bu dee opposition opposition am na ay député opposition am na député yoo xam ne ñoom radical de Macky Sall radical du pouvoir am ñooñu ay porteur de voix rek am na conseil municipal boo mais ko xam ne bi nga juddoo ba nekk mosoo sa am benn poste ci Sénégal maa ngi yem ngay ne yaay yaay yaay rek la réew mi bu ñu nee bul marche nga marche par bu ñu nee dafa ni nga braver état bu ñu la jàppee nga ni leen génne par force ñu nit teg këram nga toj ko taal ko ne léegi boo koy jàpp rek ci mouvement bi la woon mais xanaa kay ko taal du Sénégalais so wala dafa am deux Sénégal dans ce pays. bu fekkee ne réew mi ku dem ba am ku ñu tooñ amatoo dem ci yoon teg ko ñu teg ñu teg yoon ki ñu tooñ fa la réew mi jëm muy nga xam nga faral Macky Sall yaa xam ngay doomam yaa xam ngay rakkam yaa xam nga faral opposition mais bu la tooñee am nga droit porter plainte bu yàqaseel rek yoo teg ci yoon mais li ñu bëgg a def nii ci réew mi buñ de xam ni mujj ko man sa morom duma man de Birima Ndiaye dootuma may kenn may balaa nga maa rey ma rey la non si dootuma may kenn may kil nit balaa nga maa kil ma kil la non balaa maa yàqal ma yàq la mais je conçois très clair dañuy mën a teg yoon. ku def lu yoon yoon teg sa kaw ñëpp nekk ay citoyen sénégalais mais bu ñu bëggee ëffal nag nit ñi ak ak ay wuyu mais ngay sama tukaay parce que ku jëm kër jaam di ko taal tees a wuyu boo ko fekkoon da nga koy rey ñi ñoon di taal tees bu bëggoon di gën a taal ci dañ koy rey bu kee gën bu jaral ci suñu rey ko c'est de la méchanceté mënuñu fexe ba réew mi am ñu tekki bu fekkee ni ku la gën nga da ngay yàq taal c'est de la méchanceté du politique parce que taal TFM taal kër bi te kër la jub ça règle quoi ci sécurité politique bi ban démocratie lay créé ci réew mi ça peut régler quoi donc seen marche bi marche ball pour la tegul fenn yëfu naa fekk la ne xeexal ñëpp baa ñu noppi un point un trait merci bo bismillah namoon nga sa waay de <laughs>